docteur Cheikh Seck maa ngi lay nuyu. maa ngi leen nga nekk secretaire général bu F2S fédération des syndicats de la santé récemment la conférence des euh, leaders euh, des syndicats de la santé di interpeller autorité yu bees yi ci situation socio-sanitaire bi nga xam ni moo nekk ci réew mi est-ce que mën nga ñëwaat ak ñun ci situation boobule. situation bi sax mën nañu wax ni du nu créé mais peut lu mu fekk la. mais dama ne nag nit nag moom boo ñëwee fekk leen na loo xam ne aussi baaxul ba nit ñi wóolu la parce que nit ñoo xam ne lan nekkoon jaatu ñu ne yow léegi yow nga ni mën ko koo redressé ñu ne la jox la waaw mais boobu ak léegi ça doit faire mu war a mat ay juróom-benn ak lu topp ñun mosuñu toog te déposé wuñ très tôt point préavis de grève def ñu sax plateforme parce que dafa amoon accord dafa fekkoon ni bi ñu jógee ak gouvernement bi passé ñu suñuy woon ñaari accord benn accord bi 10 mai 2022 la woon mais mu amoon ay jafe-jafe mais le 29 décembre 2023 ñu signé waat beneen accord accord yooyu bu ci njëkk bi ab ministère des finances la woon pour ñu gisoon ni ñiy liggéey kër docteur seen salaire yi dafa faible woon ba ñu jéem a xool mu koy améliorer mais ban ko defee au ñu joxandoo ñëpp jox ñu woon ñëpp dafa am ñu mu jox bàyyi ñu ci des or ku nekk xam na ni tey jii boo xoolee ci service santé yi li fiy liggéey bëri nañ trop mais mi nga xam ne ñoom la tey ji état bi fay xaalis ñu tuuti lañ ñu néew lañ parce que tey ji bu ne quarante quatre mille agents maanaam ñeent fukki junne ak ñeent ñooy liggéey ci kër docteur boo commencé ci de santé ba ca établissement public de santé bi gën a kawe ñi te nekk ay fonctionnaires matuñu dix mille personnes maanaam fukki junne ci ñeent fukki junne yooyu ça veut dire que la yëpp ay contractuel la ci biir contractuel yooyu niveau boo xalaat rek am na fa ay médecins infirmiers sages-femmes travailleurs sociaux ñëpp ñu ngi ci waa nag benn différence moo am suñ suñu diggante ak ñooñu mooy ñu nekk nañ fonctionnaire ñoom nekk ñu fonctionnaire ñoo bokk parce que service bi ñu liggéey ci hôpital bi mënoo ñëw kii seul groupe nga xam ne ñoo bokk liggéey ñoo bokk responsabilité ñoo bokk risque yi. fonction publique nag état réglé woon na ba jox ñëpp ñu war a am indemnité de logement. ñi nga xam ne personnel administratif yi tamit jox nañ leen mais ñu gis ci biir hôpitaux yi bi yëpp yi ñëwee ñun ñi nga xam ni mooy ñiy faj directement jox nañ leen waaw ah, mais man tey sama service man dong maa liggéey ñu ne ni yéen seen télé boobu wala seen rajo bi bu technicien bi liggéeyul wala keneen liggéey yow moom yor sa micro kese mënoo liggéey man tey su ma xëyee suba malade yi bu ñu egsee du man maa koy jël di ko indi pour ma xool leen il faut que am ay brancardier yu wàcce malaat bi teg leen ci chaise roulante wala ci chariot lu mënti doon ñoo indi leen dossier yi du man maa koy dem di jël secrétaire bi moom moo koy enregistré moo koy jël ak ñeneen ñi nga xam ne ñoo nettoyé service bi waaw ñooñu bokkuñu ci ci ci waaw bu dee man rek ngay jox joxuloo ñeneen du doon équité ñun ñu ne jox nañu mais na fexe ba ñëpp am parce que loolu mooy yoon léegi nag ba nu wax daanee le 29 décembre ba état bi d'accord ñi ñu ñëw ñu bees ministre bi doog a ñëw ne maa ngi doog ñëw dan ko may ñu may ko mais boobu ak léegi mois d' avril ak léegi léegi moo war a xanaa juróom-benn weer wala juróom weer du teg mais gis ñu benn teexal leneen li jëm ci mbirum recrutement personnel parce que gis nañ ni dafa am ay fonds yu bëri avec l' ancien régime yu yu fi nekkoon fonds yooyu u lieu ñu recruter du personnel qualifié wala ñu yóbbu leen biir fonction publique defuñu ko bërki démb rek lañ jox information ñu diggante avant élection yi ñu ñëw presque juróom-benn téeméeru nit utal nañ leen ay contrat ministère bon neewuñu ñëpp baaxuñu parce que am na ci ay médecins am na ci ay spécialistes am na ci lépp mais am na ci loo xam ne aussi mënuñu bind seen tur mënuñu def dara ñu seet seen structure yi te li ma gën a métti mooy bu ñu recruter ñi am qualification ci àll ba lañ leen di yóbbu mais ñi nga xam seen doom lañ seen i jarbaat leen ci biir hôpitaux yu mag yi lañ leen yóbbu ngay dem benn hôpital mel ni suñu hôpital bi ñu ngi fii ñëw di xëy ña ca nekk fonctionnaire mat ñetti téeméer booy xool ñi ca qualifié pratiquement eggul moitié wala mooy suñu mission lu dul faj mais loolu lépp wax nañ ko yi nañ ko jox leen ko mais bu ñu toogee ni gis ñu lenn loo xam ne si jëm na ci saafara loolu mais dañ alerté kat ne leen yéen kat fu ngeen jëm du fii lañ waxante woon ak yéen et loolu moo am biñ demee présenté nañ li am déficit ci personnel bi loolu mënoo ko moo ko chiffre la ñoom ministère yi mu ñëw ni am nañ bis bu quinze mille agent muy fukki junni ak juróom ça veut dire pour régler loolu il faut que ñu am benn recrutement spécial bu trois mille agent par an pendant cinq ans waaw loolu président war na ko yëg premier ministre war na ko yëg parce que ñoom ñu bees ñi bi ñu ñëwee mois d' avril xaw mois de mai li ñu njëkk def moo ni nee nañ dañuy recruter deux mille neuf cent gendarmes mais ñu daa baaxul mooy ñaari junni ak juróom-ñeent téeméer waa ka mën a ne da ngay recruter ñaari junni ak juróom-ñeenti téeméeri gendarme sa xel warul mun a def ni war ngaa recruter infirmier sage-femme médecin euh, ak spécialiste yu ñuy wax ak feebar yu bëri yi ñu gis ni depuis booba tey waxuñu ci dara dara ñu ñu rappelé leen ko parce que ñu nag dañoo sonn parce que tey liggéey boo waroon def ñetti nit war koo def wala ñeent benn nit moo koy def finalement dañuy épuisé wu moo tax boo yu bëri ñu ngi quitté fonction publique ils sont dans le privé yëpp seen yëfu bopp parce que la ngay la ngay la ngay la lay fay fonction publique mën nga ko liggéey ci semaine ba pare doo am coono bi waaw léegi est-ce que bëgg a rey pour service public comme ni ñu doon def ci enseignement ba léegi kenn ñemeetul yóbbu sa doom ci ci ci ci ci école publique da nga da nga koy fayal ci privé bi mais comme ñun nag ñun mënatunoo dem fenn dañu fexe ba service public d'autant plus que ñoom ñoo taxaw ni dañu bëgg couverture sanitaire universelle te couverture sanitaire universelle mooy lan mooy sénégalais bu nekk ak foo mënti juddu foo mënti dëkk muy Fuuta muy Kédougou muy Salémata muy Banda Fassi muy Xosanto soo yeewoo bu sa bopp dee metti di nga gis dispensaire wala carte de santé wala foo mën a fajoo te boo fa demee di fa fekk au moins ko am qualification boo xam ne mën na laa fajal sa lool muy accessibilité géographique mais aussi boo demee buñ la bindalee garab di nga ko mën a jënd wala boo ko mënul jënd bi ne garab boobu dinaa la ko may mais ci loolu lañ wax. Hmm. ci njiit réew mi loolu lañ la jóg. te ñun dañ ni préavis de grève bi mu def looloo tax ñuy grève ñu yokk subvention yi boo xoolee subvention hôpitaux yi ancien régime bi dañu budget bi yokk nañ ko c'est vrai budget bi jóge na presque cent vingt huit milliards ba deux cent soixante douze milliards waaw mais ñaata ñaata moo ci dem pour dimbale doomu aadama yi amul lu mu faje trois milliards kese xam nga hôpitaux yi yëpp quarante cinq boole leen ci deux cent soixante douze milliards yooyu état li mu leen di jàppale pour hôpitaux yi fonctionner xam nga ñaata la vingt sept milliards ci deux cent soixante douze milliards du ñu xaar nag ba nu voté seen budget jël budget di ko defee ay séminaire di dem di jënd ay logistique wala di voyager di dem di ñëw te maladie fajuwunu loolu moo tax ñu déposé suñu préavis de grève bi defuñu ko pour ñun kese mais pour améliorer suñu condition pour que mission bi ñuy wax pour ñu faj ko ñu mën ko def donc déposé nañ préavis de grève marche am nañ ko le 22 novembre euh, octobre bi le 11 le 12 ak le 13 am na am nañ grève général bu nu def mais ñu ngi rafetlu parce que keroog bu ñu yëngatoo ministre bi nañu am na lu bëri nañ nee ñoom li ñuy wax ni ñoom sumb nañ ko waaw sumb nag ak fóot wala nga naal ak weer def sor bu ñu gisee nag ba lu ñu sumb ñu gis ñu jukki nañ ko bu boobaa ñi dañ xam ne ñi ñu ngi jëm ci loolu parce que depuis juróom benn ñu leen wax te la ñu bëgg a régler ñu ngi koy régler parce que gis nañ ay nomination foo tourné ñu ngi nommé foo tourné ñu ngi nommé donc leen intéressé ñu koy def ñu ngi dem ay ay fu nekk mais ñun dañ ni nan ñu ba loolu ñu war a régler ñu ñu régler ko comprendre ñu jël recruter du personnel recrutement spécial ñu xoolaat critère d'allocation yi subvention yi ñuy joxe vingt sept milliards yooyu bu ñu ko mënee yokk ci hôpitaux yi mu nekk sax même ñu double ko wala sax ñu triple ko moo gën ñu wàññi séminaire yeeg atelier yeeg dem ci hôtel yi rek chaque jour te la ñuy wax bu ëllëg ëllëgee ñu reprendre at pour lekk xaalisu bailleurs yi neenguñu bu ko def ñu am na ay priorité loolu lañ leen demandé te ci loolu lañ leen xaar léegi nag ministre nee salaire contractuel li nga xam ni lanu waroon fay fay ñu ko woon parce que dañu toog année bii ñu di élection yi ñëw gars yi recruter kenn xamul nu mu toll ñu recruter nag mat na six cent personnes du recrutement nag fonction publique mooy ay contrat yu doon signé la parce que am nañ fond boobu parce que seen masse salariale rek toll na ci un milliard deux cent par mois lanu budgétisé woon pour année bi laataa année yi def ñeenti weer jeexal nañ xaalis parce que doo jël ba jël lu ëpp même du ñuy ñoo ko def ñu toog ño am na ñoo xam ne tamit ay personnel qualifié leen fayuñu leen mais heureusement ba di dem fay nañ leen seen xaalis ñu ne leen nag ñetti weer ci des fan lañ jëm ak ñoom ñu ne waxtaan nañ ministère des finances nee nañ dinañ dinañ ko dinañ ko dinañ ko génne ñu ngi xaar ba gis lu leer leneen li mooy indemnité de logement yi ñu waxoon dañ ko waroon nga xam ne amuñu ko leneen def nañ benn demande de leen bu ngeen defee demande relance fii un mois ministère des finances ne ah léegi kon ñu def nañ préavis bi nag taxul nga grève waaw si ak un mois boobu fekkee li ngeen wax dëgg la bu feeñee rek même bu dee minuit la mën nañoo taxaw ni suba bu leen grève nañ dem liggéey mm-hmm. foofu lañ toll. léegi plan d'action en cours bi lan la docteur Cheikh Seck lan ngeen fas yéene def information mi mm-hmm. am na le 22 octobre grève général am na ñetti fan le 11 le 12 ak le 13. leneen li ci des mooy assemblée générale yi nga xam dañ koy def ak tournée nationale bi nga xam ni dinañ ko commencé région Thiès à partir de la de, la semaine prochaine loolu lañ def comme plantation hmm. am nga appel bu ngeen bëgg a lancer le président Bassirou Diomaye par rapport ak situation bi waaw ñu ngi koy laaj moom moom président moom ñoom ñoo wax de ñoom ñoo bind couverture sanitaire universelle loolu Kadhafi ba mu ko waxee dëkkam def na ko Kadhafi ba mu mu nekk képp ku feebar doo joxe dërëm te da ngay faju waxuma ay ci âgé de zéro à cinq ans yooyu de lu mu def dafa jël pétrole ba pétrole bi waa dëkk ba amoon mooy gaz ba pétrole bi ne am mu jël ci benn pourcentage bu ngat mu jël ko teg ko yow boo feebaree boo demee dispensaire loo soxla danañ la jox lekk nañ la jox naan di ko jox foo tëdd ñu facturé la mais buñ ko facturé xaalis boobu ñu dajale woon jële ko ci pétrole bi moom la ñuy fay moom la ñuy moom la ñuy fay structure donc li da mu daan nekk foofu yëpp kenn du loo feebar doo jënd garab doo faju système nag de financement santé ñoom ñoo xam ne ñu koy defee maintenant nag loolu pour mu mën ko def il foog nga am personnel bu qualité tamit ku mën a taxaw ne dañu leen koori da ngeen recruter na nga recruter te ñun recrutement spécial la ñu soxla ñu ko ministre bi demandé mu 3000 agents yooyu par an ñu defal ñu te ñu teg nag ay critères yu valable waxuma nag ñu ne leen dañuy jox 3000. ñu jël ñoo xam ne mënuñoo bind mënuñoo wax dara ñu sol leen ci ba mu fees wala ñu jël ay clientèle politique waxuñu loolu bu ñu recruter nag personnel bu doy hmm? bu ñu joxee nit ñi conditions yu baax ñuy liggéey bu ñu traité de façon bu baax salaire bu nu fexee ba hôpitaux yi seen subvention yi ñu leen di jox mooy ndimbal bi ñu yokk ko bu ñu fexee bay contrôler utilisation argent boobu de façon rationnelle ah bu boobaa nag ñu ànd ak ñoom tamit continuer ci xeex foofu la toll merci beaucoup docteur Cheikh Seck ñu ngi lay remercier bu baax a baax voilà docteur may fàttali ni yow yaay secretaire général bu fédération des syndicats de la santé f deux s merci jërëjëf